kon nag euh, dañuy daal di jaarle ci point bi nga xam ne ci lañu war a yëkkatee jataay bi te mooy ki nga xam ne soxna yi am nañu royukaay ndax man souvent damay faral di wax ne royukaay yi ñuy wutal ñu doon ñoo xam ne nekk ñu ci biir réew mi te yow lii jege la ki nga xam ne mooy soxna jaaratulaay dekk soxna soo xam ne fanweeri at ak ñett rek bu dund liggéey fi loo xam ne nit dund na fi téeméeri at euh, liggéeyu ko te tey ku nekk gis na ne xel yëpp ca pooxaan rek la jëm te dara waral lu ko lu soxna su màgg soosu nga xam ne moo ñu fi andi Seexul seigne Ahmadou soxna soosu tay comme bisam ci lañ nek loñ ci mëna jox comme ay leçon de moral ay jangine ngir jamono ji nga xamni lañ ne soxna yi ñu leen neex lañu ñuy mm-hmm. ñen ñi toll nañ ko xamni defatu ñaw la seigne borom kër lu wax ñu ne moom dal doyna war mu bëggoon dal xamna naa nga laabiré suñ mbokk soxna yi ci borom bis bu mag bi di soxna jaaru bu seul ba xam luñ ci jànge waaw fa tabarakallah moom soxna si soxna su sun borom dimbali la mm-hmm. borom dund gu barkeel la. Mhm. donte at yi bëriwut. Mhm. fanweeri at ak ñett moom yaatuwut ci ab dund. waaye nag sun boroom defal na ko ndimbal. Mhm. ba jamono boobu yi nga xamante ni moom la fi des. muy dund gu am njariñ histoire nag du ko fàtte. waxtu wu ci nekk dana ko bàyyi xel. ba tax na sun borom dogal. moo amal ko bis boo xamante ni ni bu jub see xel yëpp dana daje ca foofee mu tëdd donte ñëpp demutit waaye ñëpp danañ dem loolu nag dafay dafay jaadu waxtu ci nekk ñu fàttalante tuuti ci ak dundam ndax ñu man ko roy day wax ni war nu ko yéem rek mm-hmm. yéem moom sëñ bi du dara mm-hmm. waaye dañoo war di jéem a roy mm-hmm. bu ko defee suñ borom dana dana jaar ak noonu fa mu doon wax inna kazalika najzil muhsinina mm-hmm. mm-hmm. suñ jéemee roy soxna jaara mm-hmm. inna allaha la yudiu ajral muhsinina waaw ku góorgóorlu rek suñ borom dana la gàttal wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana bu ko defee soxna si nag ci ak gàttal rek danañ mën a jàngat ci ak dundam muy fi ko suñ borom boole muy diggante Mbàkke ak Bosoobe ñooñu ci liñ leen xam mooy diine liñ leen xam mooy jàng ak jàngale ak ngor ci loolu rek lañ leen xam loolu nag dafay dafay daf nuy joxoñ ci ni doom boo ko bëggee yar ba mu ganeegut àdduna nga koy tàmbalee yar waaye boo xaasee xaar ba mu judd finition ca des waaye yar moom mënatoo ko mm-hmm. te loolu toujours day wax nii loolu ñi ko mënoon a faram-fàccee mu leer mooy jàngalekat yi mm-hmm. da nga gis gone yoo xamante ni wóor na la ñii moom mm-hmm. mënoo leen a sot te xëy na boo gëstu woon ca histoire ba dëgg lala ca naqari ca ndey ja nga koy fekk mbaa bàyyi moo tax yonent bi doon wax ni na ngeen bàyyi xel sidit ndax dafay royaat loolu la wala fii daan wax naa ne ko la càmmiñam neexut mu jëlub jigéenam boo hmm. jëlee jigéen bay càmmiñ la doon ngay jël hmm, hmm. <laughs> waaw wax ju wér a wér la euh, nag foofu yi mu nga xamante nii ci jikko yooyu lañ leen xam ci lañ ko yar euh, dafay jeexital ci ci njabootam ndax yar giñ ko yar ak jàngal giñ ko jàngal mooy tax bu duggee ci néegub sëy dana xam nu fay tooge dana xam itam nu muy defé lu bax ngir mu jariñ dana xam itam li war di ko mag borom hmm. lolu war nañ ko baye xel bu bax bax hmm. hmm. motax muy wax ni ñi nga xamanteni dañu tollu ci samp kër te guñ kër nañ xol bu bax bax bu fekke goor la na xol jigen ji mi jël bu mu doon den jikko mo ne ci bir fami ba ngir préparer samay doom bu dee goor jigen itam na xol borom kër bi mu bëgg andal ku mu doon yan jikko moom ne ci moom ngir préparé mm-hmm. doom te dama ni sax la ci jik jigéen ci boroom kër jigut góor ci soxna mm-hmm. ndax jigéen moom lu borom këram mën a mel moom mën naa am lu baax mm-hmm. waaw ndax damay wax ni Asiya muy soon soxna si Firawna Firawna gën a bon ci góor ñi te Asiya tu bokk na ci sangi jamono waaw kon jëkkëram wàññiwu ko dara waaw hmm, ah, kay waaye teewul nag la ko waroon ci biir néegub sëy te ceeb ko ñoom ñaar doon doon na ca hmm. doxal la ko ca diineem sant hmm. waaye wet gi nga xamante ni nii moom la concerné muy diggam ak boroomam moom amu ca xel yaar amu ci benn taxawaay loolu seetlu bu am solo la boo xamante ni ni jigéen ñi am nañ koo bàyyi xel bu ko defee nag dañ daal di gis ni kon maam jaara am na ay waajur yu baax jàngal nañ jàng wa dong yëmu ci waaye jàngal nañ ko liggéey jigéen mm-hmm. ba fam demoon kenn mënu ko fa mm-hmm. te it xam na diine bi mm-hmm. loolu moo tax biñ ko yëkkatee ñu jox ko ab nawleb gorom boo xamante ni mbokk ma mu nangu faa toog mbokk ma itam xajoo ko yiir ko nangu koo yor loolu yitam dafay am te loolu buñ demee ci njàngalem sëñ bi rek dafa doon wax ni bépp sëy bu ñuy takk te ma doon ca dara ñett sart yi mënu caa ñàkk nañ bëggante nañ war a ànd mm-hmm. na ku góor ki te na ko jigéen mm-hmm, mm-hmm, ah léegi suñ demee ba ñetti sàrt yi moom mënta ne benn bi mënta ñàkk mooy na ko góor ki te na ko jigéen ndax nee adduna day néeg bu lëndëm jigéen di seen max nee na selmaxa nag boo ko dugalee ki néeg bu lëndëm te dugaloo fa ko ko tane lu leer mën na faa bañ a juddoo moo tax lu mën a xew na ko góor ki tane ko jigéen waaw doon ko yaatu dënd ko am maîtrise te mën a muñ ba pare am njariñ la loolu mooy yor jigéen nga gis ni boob yi nga xamante ni ni dugg na ci loxoy sëñ Mor Anta Sali yi jigéen ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax mooy jaawatle wut mm-hmm. li ko war ci sëñ Mor ak li suñ boroom waral ci moom mm-hmm. ndax jëfe li suñ boroom waral ci moom moo tax mu tudd jaaratullahi mm-hmm. waaye Mariama Bousso lañ tef li ci ay noppam waaw kon Farlon ci jaamu yalla ak taxawayam motax mm. ñu nga ko dëkkaalib suñu borom mm. Mm. waaw xamni factory dekk suñu borom nga xamni ne fekk rek mi ngi ci lu koy may ëllëg waaw kay waye taxul nak mu sagane ben yoon li nga xamanteni ni war di gëm ak sëñ mor war di gëm ak bokki dëkkandoo bu jigen yoy mu dekkalon war itam di gëm ak daara ja ndax mor daara la daam gone yoo xam ne seen nday nekk fa te waruñoo tumuranke te ay jigéen rek leen di toppatoo te moom warloo woon na ko yooyu yëpp daf caab feeñ te loolu mooy jigéen ñi war nañ caa roye yu bare bari benn mooy diggam ak sëñ moor borom kër baat laam ci këram bàyyee woon na ko nangu woon naa tënku ci ay ndigalam waxtu wu ci ma yi dafa bànnee xam te yooyu nee na am na ay exemple yoo xamante ni mënees na ko cee cité ngir jigéen ñi bàyyi ba ci jiitu rek mooy mm. bañ koy indi mm. lañ ko laaj moom lu mu doon xas mooy dem gi mi dem ko siñ Mor lu mu fu bëgg mm-hmm. Mm-hmm. loolu mag ñi dañ koo fonkoon ndax dañ daan wax gor sa wax ja gor ca wax ja mm-hmm. mooy la nga wax loolu lañuy ñuy boole ko di topp nag say jéego ba xam li nga waxoon mi ngi nga bàyyi xel wala fi nga ko waxoon nga ko sànni moom ba muy ñëw daa laaj ka ko fi jiitu woon mooy soxna Anta njaay lu mu wax. ñu mhm. ko Anta Ndiaye day ne woon na fas na yéene kër sëñ Mor Anta dana fa liggéeyal yàlla ba jur fa ab jant ak weer. Mhm. jant ak weer nag mooy koy dox ci kaw suuf dara la tiim. loolu na rek la loo mooy danaa fa jur koo xamante ni seenu baax dana àgg ci kuy bañ ñu tiim la da nga ci kaw suuf. Mhm, te yàlla may na ko maam Cheikh Anta may ko sëñ Afia. may ko soxna Fati Anta nga xam ne jigéen la waaye fam sëyi woon. Mm. jur na fay góor yàlla. loolu nag yitte la ju kawe. Mm. ñu nettali ko loolu mu ne ah lu gën a kawe jant ak weer de moom amut. amut te jàng na ci alxuraan suñu borom ne ab yonent ci dootu wàcc. Mm-hmm, waaw. Mm-hmm. Ah, léegi kon xelam ci asamaan rek lay dem mu ne kon danaa fi indi asamaan su leen am. da xamni ni keur kër dana neex parce que keur concurrence ci dooma gëna bax ci lu bax ci lu bax dooma gëna bax rek ci lu bax waaw dooma gëna bax baax gën a ci lañu concurrence seenu jongante lepp moy dooma gëna bax lool lool lool day wax dëgg yàlla rom neex a neex gu neex neex lay doon course bu neex neex lay doon ndax bu boobaa borom keur gi da koy daldi am yaqeen ci ni mom wóor ko ni lu jur dana bax waaw mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ah, ndax daam ko doon laaj seigne bara naa ko ñaanug wàllu ak lëggéeyam ndey lu ci ban seigne bara ne ko ku ndayam lëggéey du tasse walli sax bam diko ñaanal di ko ñaanal <laughs> waaw waaw ah nga daal di gis ni kon loola ab ab jéego la ba mu dikkee ca loola rek la nekk mm-hmm. ca la ne ndax ñu ngi wax naan xaw ma sàkket wu ko suñ mor doon téyeloo mm-hmm. sàkket wu naay mm-hmm. mu jubbanti ko samp xer ba ni ko téyel ma wuuti lu ma ko takke xiin wa sàqi suñ mor dugg néegam dàpp ni moom dugg na néegam dëkk moom ma nga fa di xaar kàddu gi ko ni woon téyel ndigal ñu ko baal ndigal ndigal ndigal amee solo nga xam ni suñ mor daa génnaat dong mu melax mu seen ko mu laaj ko mu ni ko ah yaa ma ne woon tëyal ma ma ñëw bi hmm. te bëggut mu ñëw du ko fa fekk hmm. loolu jigéen ñi war nañ ko bàyyi xel waaw royukaay yi nii bari na ñu dem poroxaan te amuñu seen digal am seen borom kër <laughs> waaw bul dem nga ni dem dëgg waaw hmm. ah, wala weer si naa paas ba pare weer si paas ba pare door ñëw di tàggoo di tàggoo yëgle la waaw kay yëgle la yooyu dafay am beneen bi ci des yi yooyu war naa togg matt ma tooy waaye daa dem ci biir néeg ba wax ay sëram jël gaal ga togge ko ndékki ma ni suñ jigéen ñi dañoo gaaw lool ci jébbale ak ay mm-hmm. maa ay woon tey waaye dama sama bopp bi day metti tax nga ni ki topp ci yow jëlal mm-hmm. wala damaa war a dem barab sàngam tax nga ni ki topp ci yow jëlal mm-hmm. wala aw lay wala mu guddee nga naan damaa fottul woon matt wala gaz bi daa jeex wala damaa fàtte jënd këriñ. lin eh, nañ xool ci jigéen ñi ko borom këram bi jaral ak gaal gaal mm-hmm. parce que boobu la ñuy denc mi ngi mel ni nga duggoon rek léegi sa am waal kaat nga nga dajji bunt ba dem xàmb ko mm-hmm. ngir damay damay togg te amu mat mm-hmm. kenn jigéen du la ko defal moom mu defoon ko ngir war ma ji mu am ci borom këram du ko ni mukk ndekki li përéwut ndax matt ma daa tooy wala ma ni loolu buñ ci seetloo fi mu doon nii da ngay gis jigéen ñu bari ñoo xam ne fi mu doon nii seen doom yi ci biti la ñuy ndekki boo xëy ñu jox la mot sa mburu cent la boo génnee jënd ma ni kay jaay nam farloo ba njaay ma teel a pare nga xamante ni lu sa doom teel teel a dana ko bu mu toog boo amoon farlu googa say doom dooñu ndékkee ci biir kër ga waaw bari borom kër yoo xam ne ci taabali may gay la ñuy ndékkee mm-hmm. te bàyyi jeeg ci biir kër ga muy nelaw yeewoogu mm-hmm. nga xam ne ne ko kii farloo ci wut xaalis moom bu ko ngërëmal borom këram ñore woon noonu mm-hmm. da nga ndékki door a génn kër mbuusi cere yi tam naka noonu cere yi ci mbedd yëpp <laughs> gaa yi koy jënd te ñu nga bàyyi jeeg nee naa leen moom am pepp amub jeeg te mënu am cere moom boobu ñàkk fay ne moom xaw ma lu ma gën a kër te jeeg bi bu nee ngërëm sa ngërëm laay wut waxul dëgg waaw ah. ndax bu fekkee sa ngërëm laay wut te xam li nga bëgg danaa quoi ki jënd cere ñaari yoon indi ko war ngaa xam ne kii cere la bëgg de waaw te ab sam nawle bi jeeg dong mu koy def bu mhm. soobee yàlla dama naan bu soobee yàlla moom saa yoo neeti sëlmal gerte naan la cere ngi ni mhm. yoo xam ne maa koy defal sama loxo kenn du ma caaw mhm. loolu manees na koo jàngee ci soxna jaar yónni nañ ko ndox mu àkk ndaa la ndox newu ca tax su ndox moom rooti woon dongee naan nañ ko te suñ mor daa bëgg a jàpp mu këf baag ba xëy na fit na jëm demee ca teen ba doon lonk baag bi mu rëcc mm-hmm. léegi sata la ko la jëm ni na daan dugg ci biir rek mm-hmm. buñ ko génnee mu génnaale ndox kooku xalaat loolu day dee léegi de moom mayal sa bàyyi ndox rek. léegi kay dama leen moom képp ku fi taawloo doomu jigéen doomu jigéen jaay sëy mooy sëy waaw <laughs> mayal sa bàyyi ndox mm-hmm. jël añ bi yóbbu sa bàyyi mm-hmm. tey boo bu subaa ginnaaw doo jàngi léegi fóotalul sa baay forog beeg caay ji mm-hmm. <laughs> te bëgg ngërëm nag duñ duñ am ngërëm góor ñooy fay ndox ñooy rooti ñooy wàllu ji ñooy buub te yooyu lañ daan wutee ngërëmal yàlla léegi bu dee wallu gi ay jox xaalis ba bu dee ndox mu neex mi maay jënd ah, maay jënd kër yi hmm. maay chargé gaz saret ah, mbalit maa koy fay hmm. léegi fu ñu jëlee nag gi rek ñu daal ne ah waajee fekk ñooma de ah, déedéet ñooma lépp ñoom ñooma hmm. yooyu ma nees na ko roy ci soxna si gis itam ni ñi mu dëkkaloon bàyyi woon na leen xel ndax daana beru togg upp ba mu jekk ñëw jox sëñ Mor Anta Sali ko soxna Anta Ndiaye nga xam ne soxna Anta Ndiaye boo sëñ bii delloo ak cant lay xam ne am na ko ko wóotu di ko sàkkul ngërëmu ca borom këram jigéen ñi ndax buñ doon def noonu kër yi du gën a neex mhm. waaye kenn ku ci nekk sa pexe mooy sama wujju daal dana fexe ba bu nuyootee dee suñu ko fay mhm. wala fay gu jot gi ñu ko daan fay di jàmmante moom danaa fexe bañ wàññi ko waaw kay mhm. mooy tuumaal la ko waxal la fa la nu weñ yàlla na leen yokkal la sam ñulug wala ñu dolli la sa xorom wala sabotage boo xamante dugal nañ ko ba waa ji bët bi la doon xool léegi ñu koy wàññi est-ce que ñoom noonu lañ doon dund déedéet kër ga kërug daara la mm. dama wax ni kër mën naa xat mm. waaye jigéen a koy yaatal mm-hmm, mm-hmm. mën naa yaatu ŋàpp mm-hmm. waaye jigéen a koy xatal ba kenn du fa dugg soxna jaara bokkoon na ci esprit bi ñu dunde mooy yaatal kër ga ñu donge yëpp jaboote woon na leen néegam lañ daan ñuy def seen dencukaay seen ci ndaam la ñuy naane jaxasoo moom ci ci wet ku nekk ñeme ko mu doon ndey daara loolu itam jigéen ñi wax ne damay wax ne dugg ci biir kër xàmme doom yi ndaw si jur ak ya kay jur mm-hmm. nee loolu ñaaw na ci ci am dama ñaaw na mm-hmm. waaw ku dugg ci biir kër xam ne ko rek xamal ni kër ga normal bi mm-hmm. mën ngaa dugg ci biir kër ba xàmme doo ci xàmme jigéen ñi kenn ku ci kenn jur ndax dañuy jàpp ni ñoo jaboote ñëpp kenn ku ñooy daw daanu ci sa tool ñu dem waaye ci gis jigéen ñoo xamante ni bañ wàccee ci kër gi ba tey ji gone du dugg seen néeg du gone duggee seen néeg rek seen doom yi bopp waaye gone sax bu lay ba nga dugg ci biir néeg ba day wàññi ko ndax xam ne ndax xam ne bu duggee la ko cay fekk mat naa moytu mag ñi doon socc sëñ mor jaar nga xamni dañ fa daan dikkit daana rab ay mbalaan jamonoy sedd di leen ko may daana leen defal ay wantay di leen ko may mais mhm. eh, daana ñawi biteel di ko rosé ndox mu sedd nga xamni ne leen koy duuse yoy yep ay ay ay jëf la yo xamanteni ni dafa dégg rek l'islam mhm, mhm. parce que da ngay sey ak sa borom kër wala masla ak ñep sey ak sa borom kër masla ak ñëpp loolu moom la morit daan wax ne da ngay jébbalu ci kenn te lëggéeyal ñëpp mm, mm, mm, waaye fii rek laa féete man kii dong laa faale ñaareel doo am gërëm te jigéen ñi da nga koy wax daan man kii ma fi indi dong laa faale loolu dafa gàtt sëy nag saako soof la ñaara koy duy waaye mbooloo koy yëkkati waaw te ñuy seen loxo rek da nga yëkk yooyu mënees na ko royee ci soxna si nga gis ni itam ni ku sun borom dimbali la ci dégg ndax Saalum dëkk sëñ Mor Diarra moo fa doon dem yóbbaale leen ci woote bu Maba Jaxu woote woon ngir samp diine kon nee naa leen su su nangoo bay taxuloon ñu dem Saalum commerce yóbbuwu leen fa ñax mu bari muñ doon sàmmi yóbbuwu leen sàmm seen diine moo leen fa yóbbu moo leen fa yóbbu in la u kalimatillahi moo leen fa yóbbu mooy yëkkati baatub laa ilaha illallah mm-hmm. képp moo leen fa won ba sëñ bay dam bu len neexoon ni noonu doon dem dekk mu sànni léegi demal sa yo ñëwaatee fekk na waaye dañoo fobu and ak mom dem ba suñu borom dogal mom mu bakkanam dess wa ñu denc ko fa tukku ñu bis wa loolu nat suñu borom waye nangu ga ak taxaway bu ci ba taxna na suñu borom fayé nako lo xamanteni xamante ni bo doon wër ci aduna bi jigeen ñu am lu mel ni mu am bari wu parce que nag yàlla yàlla fay te du ma wax yàlla fay na ko sax waaye motivation laay wax. Mhm. Mhm. Mhm. ndax fii moom suñu borom diggéewul fii ak fay. <laughs> déedéet les motivation la rek. mooy soññi ñeneen ñi ci des suñu classe gi. pour ñu xam ni. al jasaawul ihsaan ilal ihsaan mm-hmm. waaw mm-hmm. motivation la mm-hmm. waaye du fay ga fay ga mu àgguguñ ca ndax suñ borom diggewut fii ci ak fay waaye nag dana la motiver ba nga gën a góorgóorlu dana la defal motivation it boo xamante ne nii mboolem ñu nekkoon sa gannaaw doon góorgóorlu danañ gën a fil li seenu xel ñi nga xam ne dañoo toogoon it danañ yël bu waat jóg nag xam ni kat inna allaha la yudiu ajral muhsinin loolu mooy léeg-léeg nga xamante ni nii moo ci fay kon soxna jaara nañoo royee ci moom ni nit ku woyof la loolu jigéen ñi war nañ ko mën a roy ci moom mhm. mooy bàyyi seen diis bi mhm. ndax li sëñ Moussa wax rek mooy am na ñoo xam aw sant la ñuy sëye mooy ci famille bi la bokk kenn mhm. gënu ma fi nanga ak ndàngam wala sax waneen sant woo xam ne xëy na ci baneen famille lañ la jëlee nga ni waaw noonu suñ famille nangam ak nangam noonu doon jaami kenn yi nangam ak nangam jigéen bu bëggee daal faw mu jaamu borom këram jaamu yàlla lañ koy def waaye faaw mu nangul borom këram mm-hmm, mm-hmm, waaw mm-hmm. nangu aku njaam nag dañoo bokk dañoo xaw a niroo ak njaam loo cee def force lay doon nangu nag maa koy def sama coobaree bopp te jublu ci ngërëmal suñu borom nit ku man a muñ la itam ndax mu ne nuyu na ko ci jamono ci ay circonstances waaye fexe na ba jéggi ko mooy jigéen dafay nangoo muñ ci biir néegub sëyam dana bari yu la cay nuyu waaye muñ rek moo la cay génne ndax dañuy wax ni jigéen bu ko naqar nuyoo ci biir néegub sëyam da wuti jëlagu néegu wala tàncee lu yag yàgg dana la bay mm-hmm. bu la bàyyee nga fex jigen dana am lu ko naqari dugg ci biir negam joy ba xolam sedd mu génn mm-hmm. du te sax ay morom seetlu ko niko sa kanam gi daa gàll waaye dañ leen dama don nelaw wala ni dama leen wax mukk dama don joy wala dama am lu ma naqari mm-hmm. waaye nee na bu fekente ni nak da la nuy ci biir néegub sey nga wuteeg mom ëtt ba balaa am jamu dal la génn kër gi waaw ci ëtt ba ngay taxaw tàccu diw mi ma def nangam ñu la yakku ci ba man de suma don doon nangam naa nga tegal say bagage dem rëccu rek lay nit motax ku mën muñ la ku yaatu la itam mooy musta denc dara mhm. waaw lu tax ñu di ko tagg ba nëgali mhm. mooy ak yaatoom mhm. ku tabe la itam mooy àllalam waxtu wu ci nekk ci la doon wut yàlla nit ci li ko yàlla wërsëgale ci lay suñu borom waaw loolu itam nit ku lewet la itam mooy si tut jaam njabootam buñ ko gis borom këram itam bu ko gis jigéen aw tàngooram war na ko nëbb borom këram waaw lu dul lii rek ñu bëgg a toroxal ci wetam wala ñu bëgg a salfaañe diine mm-hmm, mm-hmm. nit ku la itam mooy loo yor lu mu bari bari mën na la ko bàyyi mm-hmm. te li muy yor li muy néew néew mën na koo bokk ak yow kooku nag amul problème eh, ku jege njabootam la woon itam ci di waxtaan ak ñoom njaboot damay wax ne nañ leen di dajale léeg-léeg di waxtaan ak ñoom ci taarix histoire li weesu waaw surtout suñ mag ñi su bàyyi su maam yi dañ koy waxtaanee suñu njaboot. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. yow kat sa maam barab sàngam la jóge lii ko fa tax a jóge fii mu ne woon lii la fi ne woon la doon def mii la doon def sàngam sax am na ko tooñoon waaye da koo jéggal dañ xam ne yow lii doo kuy toppee jikko yu rafet rek la ñu seen ci yow ñi ngay seen ñëpp ñu doon say moroom duñ say àndandoo waaw man ngaa ànd ak ñoom waaye doo leen roy loolu soxna jaara daf ci daan sakki lu bare bare mhm. njabootam mhm. ndax wax nañu seigne touba bi mi lal abdar di ca taxaw mhm. fanaan ba bët set taxaw booba dala ko jang wa yaayam la deg mu bokku na ci da bu salihin khiyabul lay <laughs> mu tàmbali di ko def te xamugul xamugul sax jariñ la waye reg na rek yaayam nan mag ñu bax ñi day bu jekk dañuy fanani julli tax mu buñ teddé mom mu taxaw ci kaw der bi fanani fanani fanaane taxaw ba set ma ne nun bu dee suñ doom yi nun saaga la ñuy jànge wax mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. saaga rek waaw ndax day saaga yaayam ree woo kenn ko kay déglu li muy wax mu saaga yaay reewul saaga nga xamante ni nii daanaka dana génn sax saaga ku fatu saaga ndax ni ko waa kër gi de yaay ko de boole koog di tëgal muy fecc li kooku ñàkk jom góor bu ko déparé foo jëm déedéet moom kañ moom xanaa eh, doy waar rek kañ doy waar eh, <laughs> doy waar ah moo tax star yi léegi mooy fecckat yi rek fecckat yi waaw góor gu wagasu ay tama tiim ko soy muy wàngal bi ko kooku bu ko diine yaakaaree diine ci gannaaw la jëm. da ca ginnaaw kay moom ca ginnaaw. te ñoo ñooy star yi fi ne nii ñooy vedette yi nga xamante ni ñoom la gone yi def ay référence mm-hmm. parce que ñoom ñoo yor alal jaaxaankat mm-hmm. yeeg yooyu ñoo yor xaalis mm-hmm. léegi ñi nga xamante ne ni dañoo jub tege ci yoon mel na ni seen wërsëg dañ ko limité limité waaw ah, kay waaye bu boobaa nag damay nañu nañu doyloo doylu te indi ngor te indi ngor teg xam ne saa yu tawee nag buntu duus bay jëkk sax buntu jàkka <laughs> waaw loolu de moom moom am bi moom bu tawee pare de buntu duus ba mooy jëkk sax buntu jàkka te pourtant jàkka jëfa ah, taxaw rek jàkka jàkk na sell <laughs> loolu de am jàngin la moom <laughs> si yàq ma moo tax alal yooyu mhm. buñ ci basé wu yoy yépp nak aw jangat la yo ma mas nako jangé mhm. ci dund dund soxna ci motax jigen ñaw wax ni ku ci dem poroxan ba ñew te sa waakër kër yegul ñu soppi ko mhm. sax dem poroxan amul jariñ amul jariñ ah. ay sorti dal lañu ëpp luñu organiser waye pass pass mom ñu neew mhm. néw la ci yob neew néw la ci pass pass yob dañ leen waxu dara nak mais buñ doon waxtaan ak ñom di leen orienter da la yob parce que bëgg nañ lu bax ndax bo gisé liñ ci daj moy cotiser andi pass wat ay mbub dagg carte maam jaar nga xam ne lay alimente daara ja seen wërsëg la boole ko cotiser loo xamante ni nii buñ demee togg gañ fay togg mm. lekkuñu ko sax fu ñu dëkk mm. ci bëgg mu neex bëgg mu jaar yoon mm. kooku bu am na ci loo xamante ni boo ko ci jooyantee tuuti rek mu am ci lu kawe sa njort te mooy wax ko kii nga fekk si melokaan yi la mel ndax ñoom ñëpp bëgg lu baax mm-hmm. waaye dañ leen a waxul dara mm-hmm. dañ leen a bàyyi rek folklore bi nii rek ñuy animé di dem nga xam bu ñibbisee kon danaan sa morom maa la dàq dal suñ boo ci ñëwoon deetoo dal fenn togg nañ lii togg laa toggulee mm-hmm. waaye buñ doon waxtaan ak ñoom ci soxna si mm-hmm. yaakaar naa danañ ci am bari lu soppeeku loo xamante ni mm-hmm. ndax bëgg nañoo baax waaw jërë jërë ngeen jëf euh, mbokki talib moom lañ leeral fii ci soxna si kon moom la ñu war a jël teg ko suñu kanam yaakaar naa ñu ko jëlee société bi dana soppeeku ci côté yëpp surtout jigéen ñi nga xam ne ñooy sëy te jamono jii ñu nekk sëy yi bari na ay coow bari na lu ne dama ko dama koy faral di dégg sax moom ci waxtaanam mu ne eh, li tax coow li bari mooy ñi bëgg a jiite moo bari waaye boo demoon tey ca armeel ya ñëpp dañu àndandoo ne neem rek daa mel ne kenn rek koy jiite. <laughs> waaw kenn rek ko di ko wax. waaw waaw moom <laughs> mhm. bari bari bari bari bari moom coow du ji. Mhm, mhm. waaw neem kenn rek leen yow. waaw wuti wuñ dépasse wuti wuñ courant jàmbatuñ ndox jàmbatuñ dara. kenn rek leen yoon moo tax coow <laughs> coow bëri mm-hmm. fii nag kenn ku ne day jàpp ne sa moom yaa ko gën a yow mm-hmm. ku ne daan bàyyi bàyyi ba diw def fii daa jàpp moom a gën a yow waaye a xam ne maa gën a muus mm-hmm. maa ko gën a nangam maa ko gën a nangam loolu tax fii moom suñu mboxloo bi day bëri suñ am embouteillage lay doon waaw jërë jërë jërë euh, xam ne yi a xoj bi ne doon teewlu seen émission bu am solo bii mu seqoon ko ko sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan comme ni ko waxee léegi nekk borom xam-xam boo xam ne rafetlu nañ xam-xamam ci côté yëpp muy koo xam ne mbégteem lislaam la mbégteem yoonu murit la waaye mbégteem jeunesse bi laay wax ndax ñaan ma ñaari waxam euh, da koy da koy na ko na ko xam-xam waxee rek noonu la koy waxee te loolu moo ñu xaw a manqué fi mu ne nii dañoo amatul ay repère mais moom mii nit ku mat repère mu ngi nii muy sëñ Ahmadou jaay Ngiraan kon ñu ngi koy sant di ko di ko di ko gërëm da koy ñaanal suñ boroom dolli xam-xam bi ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ndax tey am nañ mbégte di ko dalal ci suñ plateau bii nga xam ne tey moom la euh, Ansar TV eh, doore émission bii ndax biñ ko ubbee euh, techniciens yi ñoom ñëpp dañoo ànd joxoñ ne kenn daal lañ ci bëgg njëkk a dal mooy sëñ Ahmadou Ndiaye Nguirane mu ñëw ci xam-xamam bu rafet te liñ ko doon séentoo tamit suñu borom. Euh, may nañu ci loolu ci côté yëpp point yëpp leer na te yaakaar nañ li ci des mooy ñaan suñu boroom mooy ñu dégg ak topp comme ni ñu koy waxee kon suñu axma sa kàddu gu mujj rek ñu yëkkati jataay bi waaw kàddu gu mujj gi de moom mooy sant yàlla euh, di sant itam waa Ansar TV di bu baax baax ci taxawaay ndax euh, daa bokk ci ak njullit laa ndax sëñ Tuubaa day wax ni laabiire bokki jullit yi moo gën kàddu ngànnaay di xeex ak kon ku lay wommat jëmale ci kaay nu waxtaan kaay nu dollante ci suñu biir kaay nu soññante amoo ak payam mm-hmm. ñaan suñu borom dolli leen a taxaw mottali yéene ji ndax lii itam daara rek la mm-hmm. bu doon ab classe day xat mm-hmm. ndax ñu ne ci biir classe bi rek nga mën a wax boo doon daara itam mën ngaa wax ni ñu ne ci biir daara ji doon nga man a wax mm-hmm. te jullit ñi ëpp nañ lool mm-hmm. kon bokk na ci jumtukaay yi nga xamante ne ni mënees na cee liggéeyal Sëñ Tuubaa mm-hmm. bu baax a baax te message bu sëñ bi dafa war a gën a yaatu te murit yi ñu ngi fépp ci àdduna te ñëpp lu baax lañ bëgg moo tax di amal jataay yu mel nii ngir tasaare diine bokk na ci ngànnaay yi nga xamante ne ni dañ koy li suñu borom waxoon ni itam wa aidu lahum mastata'tum min quwwa lii ba daa bokk ci ci doole jooju mm-hmm. Mm-hmm. mooy lépp loo xamante ni tubaab yi fent nañ ko di ci jaarale seeni communication ci àdduna ñun noonu ko def ngànnaay liggéey la ko diine mm-hmm. waaw te mooy juntukaay yi rek am na suñu borom yokk xéewal lii bu baax a baax mu gën yaatu doon ak télé barkeb Sëñ Tuubaa te suñu borom nangu jëf ji barakat Cheikhul Xadim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Anza TV mbokk moy sen plateforme bi ngeen doon wër bis ni ki tey lépp lu ngeen itteewoo woti ñëw leen ak singal bu ngeen fi ñëwee dootu leen ko rëccu Anza TV ci information générale tagu ci manouté boole ko professionnalisme bu wër peng ay information société wàllub religion jox nañ ko akam ba mat sëkk waaye tamit politique économie dañuy amal ay direct lépp luy événement ci mim réw rawat na région de Djourbel département de Mbacké ak Touba Anza TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko défé ngeen doon membre nombre abonnés di am en temps réel tous les événements Anza TV bataille sur nos page Facebook Anza TV sur Instagram nous sommes présents dans toutes les plateformes Anza TV c'est une chaîne bien ngeen doon xaar ak sina si renseignements mën ngeen woote 426 30 71